alhamdulillah asalaamaaleykum wa ndax programme bii li tax ñu organisé ko du dara lu dul waajal gàmmu Taïba Niassène maa ngi wax taalibe yi nag gàmmu Taïba Niassène mi ngi nekk le mars ajjuma lay tombeek may ngant benn taalibe baay yéen taalibe baay yëpp da ngeen ko waajal bés di ki tey lii nii ñu def nii tey nii ci waajal gàmmu tey ba la bokk maa ngi wax taalibe yépp ne yéen ñëpp da ngeen waajal gàmmu tey ba mu muqaddam yi ci liggéeyal baay rek lañ nekk nekkuñ ci leneen ak luñ leen mën a sosal ak luñ leen mën ci waxal newuñ ci dara ci liggéeyal baay rek lañ nekk loolu maa ngi koy wax fii di ko seede dox dugg naa ci barabi muqaddam yu bëri te nee naa leen bu soobee yàlla buñ paasee lii danaa continuer waat di dox ci loolu te danaa leen wax ne ne beneen yoon bu may dox dootul nekk man kenn waaye danaa ànd ak ay njabooti baay yoo xam kenn ku nekk ci ñoom soldat la ci pays bii gis ngeen lii ma def nii Serigne Mbaye mii toog lii xalaatam la dafa xalaat rek wax ma ma ñëw def waaye xalaatam la mi ngi nii toog sama wet te bu beneen yoonee da ngeen ci xam dara lii ñoom ñoo koy dox man nag lépp lu ma man man jaami baay laa xaji baay laa bëgguma kenn ku dut baay ma kenn it ku dut baay doom laa nag waaye doom gi jëndaa ne jëndee naa ko taalibe comme ni ko ñiy jëndee ay taalibe waaye maa ngi wax muqaddam yi bàyyi na leen ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñun ñëpp ñoo bokk bàyyi ñun ñëpp ñoo bokk jubluwaay benn sëriñ lañu am muy Mawlana Cheikh Ibrahim Niass baaba yàgg na koo wax baba wax nañu fi ba tay ne chaise bi ben chaise la bàyyi ci tok yag nañu wax ba tay ne ñun ñep ay coxori yi lañ chauffeur bi ben chauffeur la moy bàyyi te lool moy li nga xamne mo dajale fi muqaddam yi tay serign bi ni ma sa am ci Dakar ñu bari jëm nañ ko mu të waye fi wallahi alazim mboolem quartier bo deg ci Dakar ñu ngi fi tok tay ken desut tey muqaddam yëpp dañoo lal seen mbalaam ne wasifa yi indi ko fii waaye maa ngi la ñu wax ne jërëjeen jëf yal na leen baay fay ci barkeb yonent bi yal na bàyyi fayanteeg yéen te bàyyi dana leen fay jërëjëfee bàyyi jërëjëfee bàyyi jërëjëfee bàyyi wasalaamualeykum wa rahmatullah